salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli ji mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu boroom di defal jàmm fu ñu mën nekk sunu xikma bi nag tey day wax ni kullul asiyaai min tarafin waxidin mutiba kan tuctiya wal axar yaquzu faqat an tahtama wal axar yuhmilu an tasduqa wal axar yakdib an tuufiya wal axar yaxuun an tuhibba wal aaxar yakrahu xakim bi neena lépp loo xam ne ci genn wet lay jóge rek ñaari wet yi ko séq ku ne du ca def loola day nekk mbir muy sonle mu metti sax te rawatina nag ci relation yi dina mel ni bu fekkee dañuy xalaat ne yow ak ki nga jëflante yow rek yaay joxe waaye moom dim xam rek mooy nangu xamut joxe benn yoon te àdduna dañuy wax ne joxe ak jël la waaye bu dee moom nangu rek la xam xamul joxe day metti waaye nee na it nga joxe itte lool am itte waaye ki nga jëflanteel moom xaw solo mbir yi lool ñàkkal ko itte waaye itam ngay wax dëgg yow foo ki nga jëflanteel nag moom di wax naka sa dul noona loolu it relation bu metti lay doon nee na ngay matal ko kóllëre waaye ki nga jëflanteel moom di wor rek toujours muy wor wala nga bëgg lépp luy firi mbëgg nga di ko def te ki nga jëflanteel moom dafa bañ li ngay def yow eh, nga xam ne lii li muy jur mooy su yàggee nga sonn te boo sonnee taxaw bu ko defee day yomb lool relation yooyu yàqu te ay melokaan la wax sax nag li ama am solo ndax joxe ci jikkoy mbaax la bokk waaye bu dee ki ngay jëflanteel moom xamul joxe xalaatu am yitte noonu moom mu ñàkk yitte lool waaye ngay wax dëgg moom muy wax naka sadul noona ngay matal kóllëre moom muy wor ngay bëgg moom muy bañ kooku boo ko dee xool day mel ni daa bëgg safaanoog yow buggut a def lu baax relation bi gaaw a yàqu lay doon moom dafa ne dana sonle waaye sax dama ne day gaaw a yàqu far boole ci kon loolu lañu xikma bi indi liñ ci jànge nag mooy ñu xam ne rek jikko bu mu doon lu rafet rafet dañ koy weccee mu doog a am njariñ bàyyi nag jikko bu ñaawit lum ñaaw ñaaw fii bàyyi nañ ko kenn mu koy def te kenn delloowu ko ko du am njariñ du am effet itam sax wolof yi dañuy xam ne benn lam du jib daal loolu lañu xikma bindi woon tey ñu di ko sant di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah